te budget la boo xam ne maanaam dafa gën a am njariñ sax nag waaw dafa gën a am njariñ de xam nga lu tax mu gën a am njariñ mooy président de la république Macky Sall waaw maanaam joxe na ndigal ñu may cee cent million mu dugg ci budget mu war a nekk donc benn fonds concours spécial pour jàppale dëkk waaw waaw euh, man mii maa jóge fii seeti ko maa fi jóge seeti ko ne ko nag cees maa yow xamante noonu ndax depuis ba ñuy jàng université ma ne ko ci sa jëmmi bopp sama xarit nga waaye président de la république ñëpp la fi nekkal maire amul maire laa la wax de xam nga bu doon jëmmi taal si lay boppam am na droit wax lu ko neex ndax ba mu nekkul maire Sénégal yëpp xam nañu kuy taal si la ku mas a doon président Sénégal xam nga kuy taal si la mais boo nekkee maire ba pare nangu ne surga nga Baay Faal nga dañ lay yónni ngay dem. boo waxee dañ laa waxloo soo doxee dañ laa doxloo boo waxee dañ laa wax lool soo doxee dañ laa doxloo ci loolu nag ci laa gis ne Thiès bëri na ay jafe-jafe ngir lan ngir la daan dugal xaalis ci dëkk bi yépp nangu nañ ko jox ko commune yi marché yépp jox nañ leen commune yi ñu nekk ci marché yi di racket jaaykat yi di di leen koppartu yaa may dégg di njublan ah ba pare te defaruñu marché yi loola moo waral ma xamal ko ni ko ndegam li jëlee loolu ci suñu loxo ci ñi la fi toogal la jógee dafa am lu leen war ndax injustice moom baaxul ndax cees mënuñu ñu sas li ñu sas te wàññiwuñ ci dara nangu fañ daan jëlee alal pour def liggéey boobu ba pare duñu seetaan kon am na lu la ci war ni ma la waxe woon ne la nga defar tali yi ba mu tàmbali tey jii ci cees am na ñu ne woon du am ana waa Ersan waaw waaw dafa tàmbalee mais fépp la fi mu war a dem yépp dana fa dem bu soobee yàlla waaw am Cité lamit bu musul am tali di dina am tali waaw alors euh, loolu loolu man maa wax ni président de la république moom moo ci programme am moo ko def maa ko sàkk woon ci moom mu def ko ma gërëm ko ci turu waa Thiès yépp ndax loolu ma war loolu ak politique jotewul dara nit day ràññee ci àdduna kon jafe-jafe yi nga xam ne jot na fi jaar lu ci bëri mi ngi juddoo ci ñàkk ràññee boobu kon ngeen xam ne ci condition yooyu lañu liggéeyee ci juróom-benn weer yi passé kon jafe-jafe yi bari woon na ah may jël jigéen ñi di bale booba wóoru ma ne yor nan ko mais damaa xam ne foog ñu balee institution foog ñu bare dëkk bi nit ñi ne ma ñi nga jël danoo ëpp man leen ñi ngeen fi jëloon ñoo ëpp fuuf te ñi ci ëpp liggéey woon bi ma fiy ñëw li ma fi fekkoon ëpp na ñeenti téeméer ma dàq ñetti téeméer yi te kenn kaasul parce que amuñu woon liggéey woon nekkuñu fi woon ay yenn yi ay tur yu fictif la woon mais ñi ñu jël fi ñu toll nii ñu ngi toll ci à peu près deux cent quatre-vingt-dix-neuf boo dajalee permanent yeeg mais danaa ko yokk nag bu soobee yàlla waaw waaw te ku dul buur yàlla mënoo ci dara ndax yéen xam ngeen ne dafa amoon programme national de gestion des déchets bu amoon ci dëkk bi état bi teg ko fi programme boobu arrêté dëkk bi di commencé salté te du ma seetaan dëkk bi di salté ginnaaw jigéen ñi nga xam ne ñoo doon defar mairie bi te doon jàpp ci liggéey bi te ñu ci bëri seen contrat jeex dafay yoon rek moo tax ñu bind leen wax leen ne seen contrat jeex na mais yéen ñi fi nekkoon di liggéey bu seen contrat jeexee xam ngeen dañ koy renouveler waaw kiñ dul renouveler contrat kiñ président Macky Sall ak soxnaam ñi xam ñëpp xam nañ samay xarit la te mosuñoo bokk parti lu dul jamono bi ma nekkee PDS la tax ma dajeeg moom ginnaaw teeru ko ci Tiwaawan mooy am lu ma war a doxal waa Cees ma dox ko te waxoon naa leen ko te ba ma ko gisee waxuma ko lu dul njariñu Cees ak ne ko bu ma sañoon ñu bàyyi Xalifa Sall parce que bu ma sañoon ñu bàyyi ko te tëralaat règle yi gën a leeral ni mair yi war di tëddee ni état bi war a tëddee regle question wu kees yépp ba teg tëralin yoo xam ne lu ci nekk daan ci veiller nañu ca war a veiller awma pour dugg ci ku def ak ku defu loolu du sama liggéey mais am naa sañ-sañu bëgg lu dalal Sénégal te ma yaakaar ne loolu ci la bokk yaakaar naa déglu na ma foofu laa ci mën a yem.